Euh, ASCA programme la boo madame le ministre Assom Aminata Diatta moko La définition ASCA c'est Assom sport culture et action avons un programme de xamante ne fii lañ koy amee fii ci euh, Kër euh, le 20 le 20 bi programme bi dinañ ci amal conférence thème l'économie sport et opportunité emploi deuxième thème l'économie l'économie culture opportunité emploi muy ñaari thèmes yo xamante mom lañu bëgg amal fi fi ci lycée zone de recasement euh, demain mise en place bi c'est à 15 heures dina am ay kilifa yi fa ñëw lu melni les anciens internationaux dinañ fa ñëw euh, lu mel ni Cheikh Seck euh, Cheikh sek président des anciens internationaux lu melni ki def conférence bi professeur Sakho mom moy def conférence bi mais panel la bo xamante ku ci nekk di nga ci mëna xaj muy sportif yi ak euh, culte acteur culturels yi ñoom aussi tamit ñëpp ci biir. gis ne le 22 mooy final bi final bi nag dañ koy dérouler fii ci cité gendarmerie 2 euh, Kër Massar fii ci cité gendarmerie 2 mooy final bi ñaari équipe yi war a finalu mooy euh, Grand Médine moom moo war a finalu ak mbaar mi bu Jamweli ñoom ñoo war a finalu jour boobu noonu. jour final bi aussi tamit am nañ fa ay ay manifestation yoo xamante lu mel nii Ali Ale ale Casa ñoom dinañ ñëw euh, ci jouru final bi beneen bi aussi tamit euh, lu mel ni Ziski la aussi tamit dina fa dina fa jouer euh, beneen bi Pakoti aussi tamit dina fa jouer ci ci ci tournal bi dina dinañ am ay gan yu am solo yoo xamante ne au niveau département Pikine lu mel ni Ablaye Timbo honorable maire Moustapha Mbeng ak ñoo ñëpp ci département bi maire yu bëri dina ñëw député Awaña ñu bëri dina ñëw ci bës bi Euh, bu collecter, collecté bu ñu bu ñu jeexalee match bi ba pare dañu am méga concert concert euh, culturel fi, euh, au terrain yekini, wetu kër Sëñ Aydara foofu la ñu concert bi. concert bi aussi tamit dina doon concert boo xamante ne waa daraji ji famille dinañ fa ñëw aussi tamit dina fa dina dina fa ak Mami Cruz aussi tamit dina fa ñëw ak yeneen artistes yoo xamante dinañ jóge lu mel ni ñàgga lu mel ni géejawaay lu mel ni euh, biir Dakar ak ban ban banlieue bi ginnaaw raay artistes yooyu yëpp dinañ dinañ ñëw waa Kolda aussi tamit ñoom ñëpp dinañ ñëw loolu mooy doon concert bi fii ci terrain Yékini bës boobu daal moom la aska jagleel waa Kër Massar beneen ba euh, jouru concert ba dinañ am ñaari mbër yoo xamante ne dinañ jàkkaarloo face to Dabdan et ak Mbaye Tine Junior dinañ fa djégé li mosul am Kër Massar ah, ñaata ministre jaar nañ fi mos ñëw fait les acteurs culturels de Kër Massar ñaata autorité ñu yor ay millions compte bancaire yu mais ils n'ont jamais osé ne nañ defar africanité wala benen groupe de musique fi parce que dañ naan ah, ñi suñu leen jappalé tay dinañ am tour comme Dip dinañ am tour tour comme Gaka blendé mais pour la première fois Kër Massar am li donc tay si c'était à refaire ñun africanité dañuy and ak ministre bi ci culture et ak nous bi ñu pour l'intérêt de Kermassa. parce que deux ans ferme amuñu spectacle xam ngeen ci dara deux ans ferme corona a ravagé na fi Et moom mënoon na dem def ji parce que ministre de la république c'est un ministre des 14 régions donc nous ñuy sant yàlla di julli sonn nous ko gërëm di ko wuñ ko ay fleur mais nous su defee lu nice da ngay wax ni lii dafa nice en tant que groupe de musique et africanité famille en tant qu'association, représentant de la culture massaroise on est reconnu par l'État. Nous disons encore merci au ministre Aminata Assom Diata pour cette journée culturelle. Nous disons aussi merci à toute son équipe. New York Communication, New York Culture, New York Sport, New York Organisation. Franchement, gars, amuñu s'en fay quoi ñu ngi leen di que di avons jaajëfee da ngeen ñoo culturellement. bu bés baa nag di ngeen xam ne africanité am na am na am na wàllu Kër Massar